Assalamualaikum mbokki Senegal, Assalamualaikum mbokki internet ah tay sen sen mbokk artiste comédien Vieux soxo alias Meda Mbaar anda fas emision ak yene def émission bi émission bi mo ngi tuddu jotayu art jotaayu art nak limu wundu da bari manam théâtre a ngi ci biir musique a ngi ci biir euh, danse mo ngi ci biir sabar ya ngi ci biir ba ci ñi nga xamne dañuy organiser ay biir ku ci nekk dinañ la fekk fa nga nekk talal la suñu micro comme ni leen ko ci tambali bi limu wundu dafa bari moy dina am rubrique doxantu rubrique doxantu nak man mi di seen mbokk artiste comédien maa koy amal fekk leen seen répétition ànd ak yéen ñu diriger répétition yi aussi dinañ am benn rubrique boo xamante ne mooy doon yóbbalu bés bi yóbbalu bés bi dinañ ci ànd ak artiste comédien yu mag mbaa musicien bu mag mbaa danseur bu mag mu fas yéene ñu ko defal mu doon yóbbalu bés bi incha allah sama gars yi bu leen ko kenn nettali na ngeen ñu xaar fii ci Elvision ku bëgg a participer ci émission bi nag nag mën ngaa woote ci 77 208 28 22 boo amee information booy jàllale mbaa nga bëgg a sponsoriser émission bi incha allah soo wootee ci numéro yooyu.